dañ leen topp googu la mbooloo gi toppee leen mais du dara donc nit yooyu bu ñu xamut seeni responsabilité jëmale ko seeni kaw yeen yéen a war a xam lan moo leen war pour seeni destin seeni avenir ëllëg léegi nag day ci torop nga nekk ab jeune maasoo ak yeneen jeune nga leen di jox ay idée ñenn ñi rëy mën na leen jàpp ba telle sorte ñu def ne waruñu la déglu wala ñu def ni yow am nga loo leen di jaay fekkee du dara dañuy dimbalante ñun wax nañ leen depuis fort longtemps bu ñu dugg see ci réseau yi daanoon nañu bind nag ay article et tout di ko partager ci médium yi média yi tout ça mais daanu ñu woon wax ci réseaux sociaux yi de de telle sorte c'est-à-dire que ay vidéo et tout daanu ma mais daanu naa bind ay article yoo xam ne daanu nañu jàll ci ay site parce que j'ai eu à travailler sur un site man mi allé ab site euh, bu ko pour des raisons personnelles Dans na wax ci radio ci ay reportage té man suis choisir choisir sujet de reportage au-delà de proposition la rédaction du souvent j'ai eu la chance d'avoir un rédacteur en chef du may ma proposer samay sujet de reportage te sama sujet de reportage toujours c'est pour defar xel la dimbale ndaw yi la ñaax leen ci xam-xam xam seen bopp mën a mbir yi xam nu ñuy doxalee ñoom seeni bopp donc kilifa yi ñu ngi wax Sénégal de part et d'autre mais seen wax lamboo na bakkee ne trop te boko ko waxee rek nga gis ndaw yi tëb ka daanu taalibe bi manque de respect kilifa yi dañuy nekk Europe di saaga kilifa yi wax sa léegi saaga le Sénégal te bugguñu analyser seeni propos kilifa yooyu c'est comme si xam-xam sa dañ ko monopoliser la terrorisme intellectuel nous, nous nous, joxe suñuy nous, nous di critiquer ay propos nit ay position musuñu tere benn jeune mu criti critiqué ñu dañuy saaga saa yu ndey saaga yu bon yoo xam ne tey lu ñuy saaga ñun buñ ko saagoon yeneen kilifa yi du dox du baax mais kilifa yooyu suñu kilifa lañu ñu du ñen saaga wax naa leen ba taay man taalibe la mais du ma taalibe comme yenn xam nga taalibe bu mësut jàng bokkut ak taalibe boo xam ne jàng na su ma waxee jàng nekkut nga yor kurus di tarbiyu kese jàng ca lekkool am ay lijaasa dem université am fa lijaasa bu tukki sax di jàng ci yoonu tukki gi ndax tukki sax lekkool la l'université la boole ma weddiyee laaj leen seen moodu moodu yi kon man du mag yenn niroow ñu loolu tax man damay libre lool te damay woyof lool di analyser suñu position yi ak suñu propos kilifa yi tey nag dama fas yéene wax ak kilifa googu imaam boobu nekk sa séeju nekk kilifa bu mag nag sa Sédhiou ndax xam nañu pakaaw lu mu mel ci xam-xam ci baatin du reewandu du yab ay kilifa mais dama jàpp ni kilifa googu dafa yaakaar ne benn réew la ne mais du Sénégal yoon duma wax sax Gambie parce que day mel ni Gambie nekkut Afrique du ma wax sa Guinée day mel ni Guinée nekkut Afrique yag nañ leen wax ni réew africain yëpp boo leen xoolee ba xool même souci la am même problème la am mais suñu kilifa yi ni bu ñuy wax gis naa kenn si ñoom wala sax même kilifa gi buy wax Macky Sall ca Pakaaw Trondo mu ngi lay nuyu ah président Trondo mu ngi lay Macky ci wàccee na lunette yi xool ko ni mu ne ah kooku kooku kooku faaw ma taxaw ko. lolu lañu wax wayan indirect wala yalwan indirect parce que wayan ak yalwan dafa beure façon ragal wax nit deug ndax da nga yaakar ne dina ay millions wala ay milliards jox la xetu wayan la xetu la yalwan la diko ray diko nap napé diko wax lu ko neex

dangay eh, gis ni ñëpp ci gannaawam la ñuy ne moom mu nekk ci kanam gis ngeen schéma boobu schéma bu extraordinaire mu ngi noonu te ñu bëri ci kilifa yu biiru Sénégal ba kenn day tax ñu fàttee loolu lu mu doon loolu tax dangeen ngeen dégg ay imaam yu dóorante si ay jàkk ay keesu jàkk yu ñu këpp ay yooyu noonu ay sangam nangam nangam sangam parce que ñoom schéma boobu sax bu ñu tracé si jumaa ji xamuñu lu muy doon léegi ku xamut loolu moom nan lay xamee yàlla ba di leen jiite ba mu ne moom moo leen di jàngal luy àdduna bëgg leen wan fu ngeen war a jaar yéen jeunesse africaine pour ngeen libérer seen bopp looloo tax tout le temps ñu wax leen ni ñun ngeen dégluñu moo ëpp fuuf ngeen dégul si yeen seen yeneen kilifa yi yi nekk biiru Sénégal ci wàllum stratégie bu ñu war a tëral pour libérer Afrique pour génnee Sénégal situation bu ne ngeen dégul ma man man je me semble être tout jeune xale bu ndaw seen kanam ñu bëre si yéen waaw waxuma nag borom xam-xam laa mais dama ne combat gi gu mené par rapport ak enjeu actuellement ci adduna bi muy fonctionner le monde d'après Covid crise mondiale la ñu ne wax nañ leen ko wax leen ko peuple bu parewut commencé wut yëngu ci li ni mel dinañu rëkk ndigoo mu sukk doon jaam éternellement les nag boo leen jëlee seeni temps de ko perdre ci discours yeneen kilifa yi ak seeni position yoo xam trop bakene billahi wallahi tallaay doo leen dem fenn parce que kilifa gi dégg ngeen ko lu mu wax mu ne ci ci ci région ngoo xam ne mooy région bu gëni a Sénégal mooy Sédhiou région bu gën a Sénégal mooy Sédhiou nan la kilifa ab imaam du fa nekkee di wax président lu nga génnee ci ay milliards milliards yu ngeen di tudd gis nañ ko ndax lu ngeen ko def gis nañ ko xam nañ foo leen ko dugal xanaa moom moom kese moo sentir loolu moom imaam bi moom kese moo yëg loolu mais ndaw yi yëguñu ko de ndaw yi nekk séeju man ma xam leen te am si ay cousin yëguñu lu moom lu mu yég moom ndax séeju tali gu baax sa amuñu ko Sédhiou presque lépp ay yoon yi xonk la dara doxu fa seen infrastructure yi yëpp a yëpp yëpp a dara baaxu ci région googu jeunesse gi amuñu sax fu ñu mën a téye ay békki xam nga nit sax nga doon ab lafañ am ay békki yu ngay jëfandikoo pour nga dox mais jeunesse su Sédhiou day raam amuñu sax békki békki laa leen wax béki laa la wax ci boppam amuñu ko pour mëna dox légui nan nga mëne nek ab kilifa nek imam nek foofu sur place nga yëkëti discours gu mel non kèn waxul Macky Sall pont bu mu défar ni baaxul amul ben utilité pour région euh, zone Marsassoum kèn waxu ko parce que man j'ai j'ai voyagé demna un peu partout dans la sud euh, dans la région sud pardon au niveau du Pakao j'ai voyagé un peu partout demna naa ba Marakisa ci bir du ben yoon du ñaar du ñett xamna ni yoon bu metti la bu compliqué la def fa pont wax dëgg yalla atou la lu bax la looloo tax man fofu duma ma wax ni Macky Sall deful dara wax nañ len ni kenn wax ab président mo xam def na 2 ans sax ci assuré deful dara mais dañeen wax ni y a le bon développement et le mauvais développement man je vous parle même pas de Sédhiou je vous parle de toute l'Afrique et le Sénégal en particulier Macky Sall lu mu wara a def def nako te dafa am lu ñu wax ci texte doy na un an moo ko dese tournée yu muy def nii yëpp achat de conscience la parce que day campagne bëgg a imposer un troisième mandat loolu lay def nii loolu la jotee ak ñun loolu la jotee ak ñun dañu ne même bu fekkee yaawul jaal sa mooy waaj doon président Sénégal bàyyi leen ko mu doon candidat dafa am kenn moo warut bokk mu ngi tudd Macky Sall te mooy seen président actuellement Le plomb fi def di campagne yo xamné ay campagne déguisée la juste parce que day préparer cette mentalité da leen di dominer psychologiquement pour nous nak taxaw à travers une sortie du conseil constitutionnel avec vos sages Nous nañu gën di jox nouvelle bo ça sera la mauvaise nouvelle pour la démocratie sénégalaise et nos institutions et notre constitution lolé def ni kon kilifa yépp ñu ngi leen di boxoñal ay di jël ay billets xaalis di taf seeni gémmiñ pour que bu ñu mën a wax lu nekk suñu kanam ñoom ñëpp ñu ngi leen di yóbbu ci écran de fumée di troubler seeni vigilance à travers une campagne électorale déguisée malheureusement pour l'Afrique élection day des un an sax ñun du ñu concentré wu ñu nekk ay campagne daw gauche droite opposition sax bu ko doon def sax ñu ne waaw mais ab président sortant nga am ay objectifs yu spécifique bien déterminé yu nga war a euh, ay défis yu nga war a relever ngay campagnes di campagne campagne déguisée juste parce que yow da nga soxla benn troisième mandat boo xam c'est anticonstitutionnel ngay corrompre ay imam yoo xam ne dañuy wax lu ñu maîtriser wul ay kilifa yoo xam ne du ñu ñeme wax nu maam Abdou doon waxee ñoom ñëpp ku nekk nag wéeru fenn am mel ni as ragal man man mii ab citoyen gu ndaw simple yéen ñëpp di ma suivre yéen a ma ëpp xam-xam lu ma ñeme wax Macky Sall te da ngeen di gis ni seen kilifa yi sax ñemew ñu ko wax Macky Sall boo bu ñeen waxee ñu ne sagesse sagesse lañ leen di wax dañ wax sagesse mooy lu ñuy def nii xanaa xamuñu ni rey si sagesse la bokk rey si sagesse la la bokk dem leen jàng histoire yonente yàlla Moussa yàlla boole woon na ko ak benn wëli boo xam ne daanoon na rey mu jàngal Moussa luy sagesse donc des fois as ndaw wax nu muy waxee mu xaw a dépassé seeni état psychologique ngéné dafa réew dafa manquer sagesse gisna tout à l'heure sa kenn ku def ben commentaire parce que man amatuma sen jot commentaire wax deug yalla muy commentaire bu positif comme négatif suma paré na lire sen commentaire mais yenen commentaire yo xamné typiquement nihiliste man duma ko duma ko prendre en compte parce que c'est de la foutaise de l'hypocrisie en quelque sorte et du banditisme intellectuel en quelque sorte malhonnêteté intellectuelle en quelque sorte mooy mooy motiver seeni commentaires yooyu noonu yu si gën a bëri hypocrisie ak fanatisme religieux et politique ñun dañu taxé de tout ay booy sonko ngeen ay léegi ku wax dëgg Sénégal rek booy sonko nga ko sonko moom mu moo tudd dëgg man sonko amul sama njëg Pastef mosuñu ma gis seen rassemblement mosuñu ma gis seeni meeting lu dul lu Sénégal woote ñoom ñu teew fa mosuma jël seeni carte mosuma cotiser Africain là, j'ai un combat dans le combat. Et tous les panafricains de l'Afrique, ainsi se sont tous signalés debout pour Djapale qui dit euh, Ousmane Sonko. Parce que c'est logique panafricaine là Mais vous faites watch rek nous dégager l'homme. Donc non seulement on le soutient par son discours, sa constance, par son idéologie, son comportement typiquement panafricain, mais on le surveille comme on surveille tous les opposants. Parce que parmi les opposants du Sénégal, il y a des gens qui tout le temps ñoo ont a sa Macky peut-être mais nit tant que que ndombol tant que ko juger jugé... Donc je peut-être le mot peut-être là a ce groupe de mots là donc pour que xam Sénégal doxut de sama gaay te kilifa bu fi toog quel que soit marta bawam ak ku ko jur quel que soit wilaya bu mu yor te waxu leen ni Sénégal doxut waxu leen ni nguur gi da ngeen war a jaakaarloo ak moom corriger ko et que waru am troisième mandat dafa war a respecter kàdduwam respecter suñuy charte réew kilifa boobu parewut jël responsabilité am kilifa boobu jarul déglu ngeen déglu ma man moo gën ngeen déglu kilifa boobu man lii laa am lu ma lay wax ci gàtt gàtt. damay waari jot amut ma ne bàyyi ma profité ci benn 15 minutes vite fait ma sànni quelques kàddu imaam Sédhiou bi nag dina invité benn doomu Sédhiou koo xam ne ku xam Sédhiou incha allah maa koy lijjanti nekk ab artiste sama grand la j'espère que dina dinañu nangul invitation boobu ñu def benn live en direct fii ci sama page bi parce que gëj naa fi nag live yéen ñu bëri du doon si gisoo leen ma mais maa ngi def ay vidéo muy jàll ci compte YouTube gars yi ñoo xam ne ñor na leen et puis soxla nañu vidéo ñu ngi koy jël di jàllal man lu may def ni wutuma si xaalis te pourtant dama soxla xaalis mais combat bi boo koy mënee da ngay désintéressé wu ci lépp loo xam ne euh, wut xaalis la ak yooyu noonu sangam nangam man su soxlaa xaalis xam naa fan laa jëm pour wut ko fa laa jëm nii damay liggéey dégg ngeen damay liggéey su ma soxlaa xaalis xam naa fan laa war a jëm mais lii lii jaamu yàlla la pour man jëmale ko sama askan. yàlla doo leen ko wut ci leneen lu dul ci nit ñi mooy defaral nit ñi lu baax di wax dëgg nit ñi di leen wax loo xam ne moo leen di sigil ci àdduna gi goo xam ne nootaate rek a fi yàgg a mësane aduna bi moom dafa tënku ci loolu ay xeet yooyu taxaw di noot ay réseau ay ay ay lobby ñooy noot ñenn ñi ñoo xam ne c'est des innocents des faibles ñu leen di téye di leen noot. Si nous combattons, nous avons des discours des de position mais sur le terrain sur le terrain Paris nous avons des sur le terrain manifestations des manifestations Les c'est pas pour le Sénégal mais pour l'Afrique. je suis souvent sur le terrain pour défendre la dignité de l'homme noir donc nous réseaux sociaux fii si fii c'est pour échanger ak yéen pour am lu lu ngeen mën a wax xam leen lu lu leen ñor ngeen bàyyi kilifa yii yu leen di nelawal te ñu nekk biiru Sénégal sagam am nañu njëriñ c'est vrai seen maam yi dafa am lu ñu fi bàyyi liggéey gu mucc ayib ñoom ñoo ko yor tey pour ngeen jot ci faaw ngeen jege leen dem leen ci loolu pour jaamu yàlla jege xam yàlla pour dugg arjana mais àdduna bi yéenay xeexal seeni bopp na loolu laa am lu mu leen di wax jërëjëf.